bismil ilaahi yan muluhaay bila manahi walantihaay bismil ilaahi yan بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي غير مربي قد رم قلبي بالاقتطاع لو سكري بلا كفور وهو النسير منه في دائي له قيرتي بلا اخترابي له قطابي مع تدائي لك رضائي لك سنائي لك التجائي ما ابتدائي يا من سافني يا من حماني حمل جفاني بمحوي دائي أسبل سوداني أسله أموري كثير خيوري بلا كدائي يا من أجاب من استجاب حبلي إجابة في ثني دائي يا سجمالي يا سجلالي يا خير وادي سفيلو حائي يا سلوجودي يا سلوفودي يا سلوجودي كل بجودي بلا انتهاء سفي وصولي بلا قفولي لجد سودي جمر طائي حبل التلاوة محى الخلاوة حبل دراية لدى الأعداء أسلحت حالي بلا ارتحالي بحدي عيالي بلا بكائي ليقبل ما تبي واحمي جنابي وشم أبي توي سكائي قدني القارورا وفو القرورا حبلي نسورا ماتي كائن حتايا لبرضايا دون سكاي يا خير مهني أخنا بمني عليه أسني بلا قلائي laka sukuri ya man kasani ya man saqani ya man hamani hanil qalai anta muradi anta himadi nawir fuadi يا ستي يا إيه سحسد حيبي أسبت ريبي تحت جيبي كالأسياء أنحيت سيري طيبت ميري كلي بخيري كالأطفياء يا خير محيي كلي برحيي وخير صحي كالأذكياء حبل استقامة خن الملامة حبل الكرامة بسل لوائي بسل جمالي بسل كمالي bisil mahadi bisil dawai bisil ibadah bisil ibadah بخلق حدا للأولياء بسنا والي ليس القتال مرضي رجالي للأسخياء بس الصحابة سوي الإجابة جال الكعبة سوي الطيائي بس الهروب جال الكروب نور الأريب ماهي الرياء ذاك المنير ذاك البصير له أشير بسسناء له قطاب بلا عتاب ولا حجاب ولا حناء غير بارايا يا سلمسايا يا سلحتايا سبيبنا أنت سروري بلا غرور شفي بروري نوير فينا بك yàlla ndax liggéey bi ni mu mel liggéey bu mel nii nga def yàlla tax lu am solo la xam na ne la ngay woote dëgg la ci yow ndax la gën a rafet nga séddee ko yàlla séddee ko sëriñ bi loola mooy wàllu taalube mooy wàllu julit taalube bu nekk lu mu gën le da ko war a jox sëriñ bi julit bu nekk lu mu gën a rafete da ko war a séddee yàlla kon néegu bi yàlla bu mel nii nga xam ne ku nekk ci biir ku ne gis nga fi ne gis nga ni mu mel kon yitte jaagi yéene jë ko liggéey ba walbati amal lii andil nu yilimaan ju mel ni ji mu nu andil tey loola ñëpp war na cee sant war na koo ñaanal mu yàgg a woote lu mel nii yàgg koo jiite te képp koo xam ne yaa ngi koy jàppale ci liggéeyam bi yàlla dimbali la sàmm la musal la te sunu yilimaan ji nga xam ne moo nu jiite tey jiit ñëpp ñaane ko yàlla yàggal ko sunu kanam wéral yaramam lu mu fab maamam Serigne Touba mi muy liggéeyal fable ko ba mu fam ko bëggee ne fii di waxtaanu kaay waaye kon ba dem سنت مكاني ست أماني حبلي سماني بس البقاء أنت سلوكي إلى المالك noo ngi lay nuyu ci turu Serigne Cheikh Mbaye mi nga xam ne moom nga fekk si tey moo ki bokkam ak njabootam ak taalibeem mu am mbégte mu rëy ci jóg gi nga xam ne jóge ko Touba ñëw fii ngir jëmam mu xam li nga làmboo xam li nga ëmb mu bëgg xéewal li nga ëmb jële ko nga sotti ko bokkam yeeg dëkkam yeeg njabootam gi loolu moo waral bi mu yëgee ne yaa ngi ñëw mu jël ko bokk yi jël ko dëkkandoo yi jël ko it njaboot gi ngir yaakaar ju mu am ci yow ak cant gu am ci yow ndax yow day nee na yi mu séq ak yow ak bokk kulëre ak taadu bi lu ca nekk jàppal nga ko ca loo xam ne aw jàppin da koy yées waaye jàppin ko féete kaw noonu lépp jàppin wow it yëg na na ko mi ngi feddali bokkam mi ngi feddali wëlëreem mi ngi feddali ak taalubeem di la dénk boppam di la dénk it bokki dëkkandoom yi nga xam ne lu mu bëgg mbaa mu yëngu ko ñu ànd ca ak moom mu bëgg nag loo koy defal nga dime ko bokkam yi ak xeetam wii door a jëm ci boppam yéen mbokk yi fi teew nag na ngeen xam ne am gan goo xam ne gii gan gu jafe la ndax sëriñ am sa di sëtul Serigne Touba boo xam ne am ci Serigne Touba lépp nga wala ba di ko def ko jumtuwaay far ko yéene la génn Serigne Touba jéego bu mu seq la génn Serigne Touba rek moo ko tax a jóg dimbali na taalibe yëpp dimbali bi dif yëpp ba ñëpp àndandoo ci di jàng xasaayit te xasaayit yi kat Serigne Touba lépp lépp ci la ko daxañ moom mii nag tasaare taalibe yëpp ndax ku jàppanteeg moom wala nga xamanteeg moom waxtu wu nekk yaa ngi jàng xasaayit te xasaayit Sëriñ dëxëñ lu bari wax ci lu bari wajhal tawalifiya bil muxtaari junnata kullu xaarin xannaari Sëriñ Tuubaa nee na sama taalif yii na nga ma ko defal muy pàkkub xam ne kii nangu naa jàng sama xasaayit yi kon Sëriñ Amsa yow mi dimbali bi yëpp ba góor ak jigéen maa ndaw kenn ku nekk nangoo jàng xasaayit yaa ngi liggéeyal sa maam yaa ngi dimbali bindee bi Serigne Touba nee na wajan tawallifi ilallahi ahab min xayriha yaa xayra malikun yuhab wasran biha su doora man taalamoo sarhan bi nga xam ne borom nangu naa jàng xasaayit daañu ko ubbi ubbi goo xam ne benn lëndëm lëndëm dootu dugg ca xol boobu nga xam nangu na jàng xasaayit kon Sëriñ Amsa yow mi fa xasaayit dugal ko taalibe yëpp ba ñu nangu cee yëngu am nga sa ngërëmul maam am nga ngërëmul ñu yaakaar Sëriñ Tuubaa ñëpp na dimbali ngeen di ma ñu dox ci Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nee na wañal bihi nasmiya fawqa sawmi sama wayi na gën a koor te koor mu wax ne li fil jinaani baaban laa yàqi fiyaa sa anu siyaam am na ci buntu ajjana buntu ñu rayhaan nga xam ne ajo woo rek moo cay kon bu sa ne sama taalif yi ñaan mu gën a kon koor kon li nga ëmbal taalibe yi di ko leen di ko jotin sa maam ci biir liggéey bu rëy ngoogu yal na la yàlla dimbali yal na la yàlla saxal yal na yàlla guddal saw fan ba yéene ji am ci liggéeyal samaam maam ci biir taalibeem yii te Serigne Touba kat taalibe yi rek mooy li koy ñoroon kon nag kuy liggéeyal ku koy dimbali ci taalibe yi ba ñëpp dox doxin yoon taalibe yaa ngay liggéeyal Serigne Touba liggéey boobu nag nga ëmbal sa ngi ñaan sa maam am sa maam gàttandu la womatal la boppam boppam ko bëggee loo fab mu ànd ak yow faaw léegi ba nga yóbbu ko fa ko nag mi ngi nii ñun ñi di bokkam. si xamuk bokk si xamuk kilif kilif lanu moom ci moom nun bokk yi ak jox na ko mu jeex tàkk sa ca dara kon bu nu sañoon nga ñaanal ko mu yàgg ñëw fii yàgg ko fee fekk te yàlla yokk ko yokk mbooloom yokk njabootam ndax lu baax rek la ci xol bi kenn ku la mu am ak yow la cay warul na te mbooloo mi nga gis dikk ñëpp kenn ku ne koy fay si bor waaye lebaluñ ko te loola moom mi ngi yaakaar ne sa jotaay bi mooy di ko ko moo tax mu dee sant bu baax ci sa jotaay bi di ñaan nga teel fi déwén te kenn bañ a manqué mbooloo mi ne kenn bañ a manqué te ku ne yokk ba yëg ko ngir ci barkam Sëriñ Tuuba mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm mi ngi lay dénkaat boppam di la dénkaat njabootam di la dénkaat aw tund yu wépp nag moom day wóor na ne li mu am ci yow jong ko moom jeex tàkk te desaloo ci dara waaye mooy fas na yéene feeg muy nekk ci kaw suuf loo nekk nekk na ca foo an na faak yow du la ñooru ci dara lu mu yëg ci yow lu ne dana ànd ak àdduna jàpp jàppale la ca ba nga amee ko na nga bëgg mi ngi ñaan nag ci barkeb askan wi mu bokk muy askanu Longhor ndax soo wajuru tedd wa Cheikh Saliou Mbacké koor gi mu jëfee ci àdduna daf noo waxoon ne yéen waa Longhor damaa bëgg yéen jàngal ma alxuraan ci biir koor gi te ñaanal ma ndax sëñ Tuubaa moo ma ko waxoon sëñ Tuubaa dama noon déedéet ñaan man dama koo weesu waaye yéen weesuwu leen ko bu ngeen di ñaan na fu mel ne Longhor wala Njare kon jàngale ma alxuraan ci biir koor gi nu jàngal ko ajjuma ba ajjuma di ci biir koor juróom-ñaari téeméeri kaamil ak juróom-ñaari fukki kaamil ak juróom-ñaari kaamil bañ ko yóotee lim bi mu joxe juróom-benn fukki junni ak juróom-benn da koo màggale alxuraan joxe suukar joxe café joxe tàndarma bi nga xamee ne génn àddina it sëñ Cheikh mi di taawam waxtu mu duggee ci koor mu ne yéen kat ginnaaw sëñ bi jox na leen ndigal ayca ba koor gi ne wees jàng nañ ko junniy kaamil ak fanweer loolee nu koy jàngal nag noo nga la ci ñaanaale yow mi nga yàgg fi tawér ndax féete nga taalibe yi fu leen kenn féetewul nga taalibe yi loolu kuréel kenn dimbalewul ndax sa saa nga bañu sax ci sa bëgg maam di jàng xasaayid rek te xasaayid yi Serigne Touba da ciy daxañ lépp ndax murit bu jébbaloo day dox waaye ba di jàng xasaayid nag ma ngay naaw kon nag jërëjëf Serigne Amsa jërëjëf Serigne Amsa yal na la yàlla yàggal sunu kanam yal la yàlla wéral sa yaram yal na nga fi yàgg ñëw yàgg na fekk te ar fi déwén te ba te a manqué te ku nekk yokk ci barke Serigne Touba samaam ju tedd gi jërëjëf jërëjëf jërëjëf sawi sakai lisil baxai mahil qatai mahil jafai ضاك المتاح ساك السجاع به يراح سوء بائي ساك الوالي ساك النادي ساك بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيراً وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ۖ وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم له البراحة له الصفعة له جماحة حبيب تقائي إرامه الماء أو رام قربا أو رام ظلما باقي لقائي فسكى يهدى وسكى يهدى له ويرضى صاب شقائي هاد مدير نور منير خيسر بصير لسيدي دائي حامي ناصير داعي بصير وعلم أبقي أقرم سرمدا وانفه وما يسوق قلبي أحمدا بلا عيدا ولا جوان ولا درر ولا تسلسل وقليل درر وصلي يا نافي ولتسلما على النبي مسلم على النبي من هدى لما سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وجل منا وجل مكاتب منافعا له يا من على سبيل الأولى جعله bi hormatil qur'ani min yaqbali ma qad nawaytu wa sun li qibali wa salli ya wadudu wal tusalimi ala lati yanu ilayhi qalami sayyidina muhammadin wal ali wa sabi filali wal mali wa abli nafa wa abli wuda wali yakun bima yasuru jidda wa salli ya adu wal tusallima ala lati ma al asa wa sallama sayyidina muhammadin wal ali وسبي في الآل والمال وسلي يا سمد أني سرمدا وسلم على النبي أحمد وعلي وسابي والتخرجي ما لم تهيب لي لخير يخرجي وسلي يا لطيف أني أبدا على النبي ورسول أحمد وعلي وسابي واحسمني من الأسى وبالمنى أكرمني وسلي أني يا لطيف بسلام على الذي تصر من الخلام سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وليبلغ فين في الدارين والتقني آرين والنارين وسلي ودود أني بسلام على النبي المجتبى كافي الملام سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمحال ولي أب ودن يفوق كل عين وإن كجلني أبيب سالئين وسلي أني أبدا وسلما على لسي نور بدا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وإن كجلني أبيب المؤمنين والمسلمين وأبيب المحسنين وسلي على مؤني في أبد وسلما على مسلسل الكبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وليقد المسوي السلاي واكتب بثا بلا إسالة فلاي وليقد المسوي السلاي واكتب بلا إسالة فلاي ومنتئى سقاوة للناوي وجه مكاري أن مع بالماء أنا القديم دهرا أديم فيك صنائي ربت ابتداحا يدي فلاحا يكفي ابتطاحا محل عنائي إني بإمتي عاينت ربحي قطعا ونوتي محل بنائي لكن عجزت حملت ماسو وما مدحت كنبلائي غار مدادي حار فؤادي حمات هادي للبدلاء فكيف أحوي متني محيي والمات محيي للهقلاء لكن أنادي كل الخباد إلى حمادي بلا جلاء يا أهل بري يا أهل بحري حجول بري بحر ساقائي باح الحيوب مبدي الخيوب منخي الجيوب من الدقاء مسد الآيات مرد الأعادي محتي المرادي بهر قائي ميرة الموت الفطائل محيي المناسر بعد العفاء نعم الحبيب نعم القريب نحما لبيب باهي القفاء حمى العيانا كفى القتالا محى المجالا بلا رفاء أخفى السرور أبدى الخيور قد سرورا لسر رجائي صف سقيما نفل لما قاد القديم إلى الرجائي حرفك قبلا قد بسفت لا فالدر والله والنفو جائد جالنا وائب مبدي حجائب نافي مسائب بادلوها مسد الخيار إلى القصور باد النسور باد البحاء قيسنا بدا من استفاد ليسنوا أبدا حتى حائي له مناقب له عجائب له قرائب بلا انتهاء ضب يكلم دب يسلم طير يعاتب كثيدا حائي سرح تسير خيس يفور بير تفور بلا رسائي جسم يحن loo ya'iinu sibur yahiinu برئيسائي قد حزب فخرا من هنا أسرى بالجسم جهرا بلا برائي أقربي بيت في مديم بسر في الأنبياء سر الأمين فوق الأمين محال أمين سر الأمين مع الأمين فوق الأمين للأزياء محط لا لا عبد الجلال عبد الجمال للأتقياء قد قدموه إسواجاهوه واحترموه طوينا قائد وزاد فيه وبنى حره وزين عنه بعد ارتقائه خبر نيلا قد سب نيلا قد فاق سيلا من سلباقاء قد جاء بميري لا لغيري وباب طيري أهل ساقائي حاز الكمال فقري جالا جاس المجالا بالاطماء نال جلالا نال جمالا بمن تحالى ربي سمائي به يالي رحي رجالي حسن نسائي نعم الحاسم نعم الكريم نعم المقيم للرؤساء كافي الخرور ماهي القرور مهدي القرور بلا نزاع بال الديور مع القيور باقي سروري للجلساء لهم تداحي بعد نجاهي عند الصباح وفي المعزاء صلاة ستة بمتي ستة تأتي هبتا محاتي سائي salaatu sitta bimati sitta taati hibata mahati sa'i alayhi salla rabbun ajalla fafaqa kulla fil qiya'i عليه سلام والأمر فقام والأجر حسان في الأزكياء على الحاتق باب الطريق أخي الوسوق كل رطائي على الغاسير سيف الباسير Serigne Cheikh Thialla Mbaye moo lay jot la am nuyoo bu jóge ci xolam yëm si ci yow di nuyu mboolem Daaru Salaam gi nga àndal gépp di nuyu njabootul Seexul Xadim Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul gépp di nuyu bokki jullit yi nga xam ne ñoo fi maase teew yëpp sëriñ bi nag daa wax ne bi mu la nuyoo ba noppi mi ngi ñaan sunu borom yàlla bàyyi la fi su la fi bàyyee mu ànd ku wér ba li ngay liggéeyal sëriñ Touba ci toolu Darou Salaam bii mu joxoon maam Cheikh Anta bu doon làmb ju ñuy bëre yàlla na doon champion nee moom day lam la daan wax rek la lay wax lambut kenn xoolul kenn dégluwul kenn sëñ Modou Rokhaya rek te yow fi sëñ Modou Rokhaya ki ñuy defal bis bii tey di sëriñ Abdou Khoule Mbay ak soxna Càlla Mbay seen waajur yi dañoo liggéey leen maam Cheikh ant liggéey bu demul fenn Cheikh nag suñ boroom daa def maamam togg jox baayam mu yekk ñu jox ko muy dënali waaye bam danee dana léeg-léeg kum taañ ndab regg nga te du tooxi sun borom yàlla def ko mu nekk ci kanam njaboot gi te amut gaafu kilifa kilifa bu ñàkkee xam ama doonatul matatul kilifa bu amutu fit matatul kilifa bu tëbewut matut kilifa waaye nun yàlla musal nañu ci mi ñaan sun borom yàlla bàyyi ba li nga bëggee liggéeyal sëñ bi lépp nga def ci su kawe sa yor di sàkku nag nga ñaanal ko ba loo tàmbali ci yoonu Serigne Touba di ko liggéey mu man ca moom ni mu ñaanee nga doonub santiñoo ci Daaru Salaam nga ñaanal ko ci askan wi mbokkum doon ci santiñoo na jógte bu mu daanu na mante bu mu tëleeti te man nga ko ab da tolloo ko nëbbu sa jàngoro ginnaaw moom mii la si alhamdulilahi rabbil alamin alhamdu kon li ma wax jëru daal loolu rek laa bëgg man loolu rek ma neex loolu rek laa bëgg nee na lañ daan wax rek lañ waxati waaye nag waxati la wax waxati ndax waxoon nañ ko fi waxati ko waaye danañ ko waxati niñ koy waxeet wallahi danañ bëgg itam ku nu ko jàppal ba loolee nuy waxe niñ ko bëgge ki ko ki ko bëggal mu defe ko nu kawen ba mu soxna ab sosal mii dafi daan indi ay teraanga nuy wax mu di ko fi indi nuy wax dañuy wax waxati tey sëriñ nee na ni mu bëggee ànd yow di liggéeyal Serigne Touba kii ci ginnaawam noonu la laxasoo topp ci moom de lu mu liggéeyal sëñ Modou Rokhaya Faye lu mu ko liggéeyal liggéey ko ci Darou Salaam rek am na ko topp ci moom parce que yéene liggéey kon nee na dañaa ko benn pakk fi bu mu am menn ndox moo ñem ko àndal ñëpp li nga xam ne am na ko fas na ko ci xolom bi te yéen ko koo ndax damaa déggan ngeen ne positif rek mooy tax a dem damaa defe ne li muy def bu toon ndax man ndax man daan tàggu jënd ay xar ak ginaar rek tey nag damaa tàggu ne ma jënd naa ay nag waxuma aw nag di ay nag ndax nag bu weesoo benn rek nag ay la ko boole ca lam ca daan boole kiraanga jaa ngi nii nii nit ñi tege seen bët ci kiraanga ji ne ni ñëpp tege kiraanga am ci na jóg te bum daan na man te bum tële ndax liggéeyal sëñ baa rek ko ñor nit ki nag bu amee pëstéef liggéeyal sëñ Touba ka muy liggéeyal yéene ko bu yegg see ca maanaam kam defe na moo ca man dana ko wax moom da cee xeeb boppam daa bëgg nga defaral ko ko bu dut yàqu. sëriñ bi nee na ñu ngi nuyu sëriñ Cheikh ci bis bu mag bii ci bis bu mag bii nga Serigne Abdou Khoule nga xam ne da cee fàttaliku a eh, fàttaliku bi nag nee na fàttaliku bi nag li tax suñu borom di ko digle li tax suñu borom di ko digle ñaari waay juróom lay fàttaliku nee na Serigne Cheikh ñaari waay juróom lay fàttaliku waaye mbooloo mi fi daje ñëpp. waaye mbooloo mi fi daje ñëpp. dinañ leen yóbbaale. dana leen yóbbaale. ñu fàttaliku Serigne Touba. ñu fàttaliku Serigne Touba. fàtte maam fàttaliku maam Cheikh Anta mi ñu ko tuddee. fàttaliku waale maam Cheikh Anta mi ñu ko tuddee. fàttaliku waale kilifa yu baax yi ci tund yi. fàttaliku waale it mbooleem kilifa yu baax yi nekk ci tund yi. fàttaliku itam. nee na dana fàttaliku itam. lu baax li nga xam ne yàgg na koo def ci tund yi. lu baax li nga xam ne yàgg na koo def ci tund yi. fàttaliku itam. fàttaliku itam. ne ba mu àndee ak soxna Afsa ba léegi. ne ba mu àndee ak soxna Afsa ba léegi. saa bu ñu ñëwee. saa bu ñu ñëwee. ñu ji soxna Afsa ko def. ñu wax ne teraanga ji kat soxna Afsa ko def. mu ëpp lam lam defoon daaw. mu ëpp lam defoon daaw. kon nag loolu suñu Cheikh ñaan. kon nag loolu nga xam ne Serigne Moussa yaa ne moom la ñu ñaanal Serigne Cheikh. muy moom mu yàgg fi. mu yàgg fi. te ànd ak teraanga. te ànd ak teraanga. ñaanal ko soxna Absa. ñaanal ko soxna Absa itam. soxna Absa dana fi yàgg. nee na soxna Absa dana fi te du tax dootu teqali ko ak teraanga mukk. tey dootu teqali ko ak teraanga mukk. sunu borom boole na ko ak teraanga. sunu borom kat boole na ko ak teraanga. moom ak kilifa jëwriñam ji. moom ak jëwriñam ji mu àndal. ndax Serigne Touba moo waxoon suñu mën maam. ndax Serigne Touba moom Cheikh Anta. Serigne moo waxoon moom Cheikh Anta. ko defal naa la teraanga yi ne ko defal naa la teraangay àdduna ak yooyu àlaaxira ngir pësteef ba mu amoon ngir pësteef ba mu amoon ba jaay la mu bokk ak moom ba jaay la mu bokk ak moom jënde ko ngërëmul yàlla jënde ko ngërëmul yàlla ak ngërëmul sëñ Tuubaa ak ngërëmul sëñ mii taxaw maam Cheikh Anta mii taxaw ak soxna soxnaam su tedd si soxna ab sa ak soxnaam su tedd si di soxna ab sa ak ñi mu àndal ak ñi mu àndal eh, def nañ loolu ay at nee na def nañ loolu ay at te bu wérutoon te loola bu wérutoon sëriñ gaawaan nanguwu ko woon sëriñ gaawaan nanguwu ko woon sëriñ Modou Rokhaya nanguwu ko woon sëriñ Modou Rokhaya nanguwu ko woon sëriñ Modou Mamoun nanguwu ko woon sëriñ Modou Mamoun it nanguwu ko woon sëriñ Touba nanguwu ko woon sëriñ Touba ci boppam nanguwu ko woon du yàgge nii kon du yàgge nii waaye lu soxna ak sa man tey ji waaye lu soxna ak sa man tey bu subaa bu sëñ seex woote waatoon bis bi bu subaa bu sëñ seex woote waan bis bi wóor na ma ne sëriñ seex nee na wóor na ko ne dana defaat lu ëpp li mu def tey dana defaat lu ëpp li mu def tey lañ demoon bay wax ne maam Cheikh Anta lañ demoon bay wax ne maam Cheikh Anta taalibey jinne yi moom ñoo koy jox alal ji mu yor taalibey jinne yi mu yor moo koy jox alal ji mu yor fekk na du taalibey jinne fekk na du taalibey jinne ba seef bi mu yor Pastef bi mu yor. ci Serigne Touba. ci Serigne Touba. Serigne Touba yor Pastef ah, boobu. Serigne Touba yor Pastef boobu. ci rasulullahi. ci rasulullahi. te rasulullahi a koy jox. te rasulullahi moom sunu borom a koy jox. te sunu borom du jeexal dara. te sunu borom du jeexal dara. te rasulullahi li ko sunu borom di jox. te rasulullahi li ko sunu borom di ci dara. mu jàllale ko Serigne Touba. mu jàllale ko Serigne Touba. Serigne lu liggéeyal. rasulullahi soxla wut lu dul liggéeyal rasulullahi lu ko lu ko rasulullahi jàll lu ko rasulullahi jàll mu jàllale ko Cheikh Anta mu jàllale ko maam ne ko tasaare ko ci njaboot bi ne ko ko ci njaboot loolu mooy diggante sëñ Cheikh Anta mi sëñ Cheikh Thialé loolu moo nekk ci diggante sëriñ seex Thialé mi ak soxna Absa ak soxna Absa lu lu mu yor tey jii lu yor tey jii jàllale ko ci soxna Absa ko ci soxna Absa soxna tasaare ko. soxna Absa tasaare ko. ci ci ci taalibe yi. ci taalibe yi. ak ci jullit yi. ak ci jullit yi. borom gaawaan dolli ko leneen. bu nu borom gaawaan dolliwaat ko leneen rek. sëñ Cheikh du jeexal. ndax sëñ seex mbay du jeexal. soxna Absa du jeexal. soxna Absa du jeexal. loolu mooy teraangay adduna ak mooy teraangay adduna ak gëj alaxira. te lépp ànd ak wér. te lépp nag dana ànd ak wér. ku mel ni eh, Moussa mii. ku mel ne Moussa mii. sëñ Ndiol Seck mii. sëñ Ndiol Seck mii. ak sëñ Mamoun Diagne mii. ak sëñ Mourou Mamoun Diagne mii. sëñ Cheikh Seck. Mm. Uh, sëñ Cheikh Seck. ak sëñ Mbacke Jaxate ak sëñ Mbacke Jaxate ak bokkam yi. ak bokkam yi. ànd ak moom. ànd ak moom. Uh, yàgg nañoo ànd ak moom lool. nee na yàgg nañoo ànd ak moom lool. bokk ak moom bis bi. bokk ak moom bi. te ñoom ñi ñëpp. te ñoom ñii ñëpp. kenn ku ci ne. kenn ku ci ne. xam naa ci yow loo xam ne. xam naa ci yow loo xam ne. loo ñaan suñu borom mu nangu. loo ñaan suñu borom dana nangu. waaw. sëñ Mamor mi nga xam ne mi ngi taxaw. sëñ Mamor mi nga xam ne mi ngi taxaw. di xalifab sëñ Abdou Xafoor. di xalifab sëñ Abdou Xafoor. mi nga xam ne man mii. nga xam ne man mii. tarbiyewu naa baayam. tarbiyewu naa baayam. ci ndigalul sëñ Modou Mamoun. ci ndigalul sëñ Modou Mamoun. nekk naa tubaatul lu nekk naa tubaatul lu yàgg. xam naa ne ku tànkam diis la. xam naa ne sëñ Mamor ku tànkam diis la. waaw sëñ Cheikh Abdou. sëñ Cheikh Abdou. tànkam diis la. ku tànkam diis la. Eh, sama sang bi sama sang bi di ilimaani Touba. di ilimaani Touba di sëñ Fallou. xam naa mi ngi waajal koor gi. xam naa ne mi ngi waajal koor moom itam ku tànkam diis la. moom itam ku tànkam diis la. waaye fu sëñ Cheikh wootee. waaye fu sëñ Cheikh wootee. képp koo xam ne xam nga ma. képp koo xam ne xam nga ma man sëñ Cheikh. wala nga xam sëñ Cheikh. wala nga xam sëñ Cheikh. wala nga xam soxnaab sa. wala nga xam soxnaab sa. loo jàpp da nga ko bàyyi. loo jàpp da ko bàyyi. te ñëw te ñëw. te xam ne la nga jàppoon. te xam ne la nga jàppoon. ñëw gee ko ëpp njariñ. ñëw gi moo ko ëpp njariñ. ndax ñëw gi. ndax ñëw gi. day bis boo xam ne. day bis boo xam ne. ngir yàlla rek tax suñu seex di ko def. ngir yàlla kese moo tax suñu seex di ko def. ak ak nit ñi rek. ak bégal nit ñi. ndax ku fi ñëw tey. ndax ku fi ñëw tey. Euh, wóor na ma ne. na ma sëñ Abdou Khoule. sëñ Abdou Khoule. bàyyi na fi loo xam ne. bàyyi na fi loo xam ne. loo ñaan. loo ñaan. ci bis bi. ci bis bi. yàlla dana ko def. yàlla dana ko def. rawatina nag. rawatina nag. sëñ Cheikh Anta mii. sëñ Cheikh Anta mii. di sëñ Cheikh Thialla Mbaye. di sëñ Cheikh Thialla Mbaye. nga xam ne. nga xam ne. wàllu yoo ko waxoon ne ko. wàllu yu moo ko waxoon ne ko. ku narut aajoom faju ku narut aajoom faju du ñëw ci yow ku yàlla narut a faj aajoom du ñëw ci yow ku ñëw ci yow rek waaye ku ñëw ci yow rek na ko wóor ne ajoom faju na ko wóor ne aajoom faju na kon nag bu bu bu wootee kon nag bu wootee ku fi ñëw rek ku fi ñëw rek na xam ne sa aajo faju na na nga xam ne sa aajo faju na soxna soxna nag soxna Absa nag ah, li nga def nii li nga def nii moom gën naa rëyati moom gën naa rëyati waaye nag yàlla moom. yàlla moom. loo baax baax. loo baax baax. moo la gën a baax. moo la gën a baax. sëriñ tuba Serigne Touba. ñemewut bor. ñemewut bor. dafa am pay. daa am pay. te loolu. te loolu. ku dëkk Daaru Salaam moom. ku dëkk Daaru Salaam moom. xam nga ko. xam ko. maam Cheikh Anta. maam Cheikh li ko Serigne Touba defal. li ko Serigne Touba defal. muy àjjanay biir ak biti. muy àjjanay biir ak joj biti. ku dëkk Daaru Salaam xam nga ko. ku dëkk Daaru Salaam xam nga ko. kon nag loolee. kon nag loolee. Sëriñ Modou Rokhaya moo waxoon ne. moo Modou Rokhaya moo waxoon ne. Longoor gii sëñ Cheikh Mbay dëkk. Longoor gii sëñ Cheikh Mbay dëkk. ak pencum Daaru Salaam mais ñoo yem. ak pencum Daaru Salaam mais ñoo yem. sëñ Modou Mamoun waxoon na ko sëñ Modou Mamoun waxoon na ko sëñ Modou Rokhaya dikk feddli ko sëñ Modou Rokhaya dikk feddli ko ñu ñëw nun itam ñu ñëw ñu tam li ciy sunu waar li ciy sunu waar ñu war koo bay ñu war koo bay waaw mu wóor ne mu wóor ne fépp foo xam ne fépp foo xam ne ñëw nan ñëw nan ñëw nañ ak ngërëm yi xalifa yi sëñ Tuubaa yi ñu boole. ak ngërëm yi xalifa yi sëñ Tuubaa yi ñu boole. kenn ku ne wax ma dégg. kenn ku ne wax ma dégg. fu ma teg sama tànk. fu ma teg sama tànk. wóor na ma ne. wóor na ma ne. fuy yokk rek la. fuy yokk rek la. du fuy dellu ginnaaw. du fuy dellu ginnaaw. loolu nag liggéey koy maye ci sëñ Tuubaa. lool nag liggéey moo koy maye ci sëñ Tuubaa. Cheikh Ibra Fall. Cheikh Ibra Fall. xëyul mbooloo rek topp ko. xëyut mbooloo rek topp ko. maam Cheikh Anta. maam Cheikh Anta. xëyut mbooloo dañ koo liggéey ci sëriñ Tuubaa. dañ koo liggéey ci sëñ Tuubaa. ba sëriñ Tuubaa takkal leen xam ne ba Serigne Touba leen garaat boo xam ne kenn mënu koo tekki kenn mënatu koo tekki ba àdduna tukki ba àdduna tukki muy teraanga ju sax dàkk muy teraanga ju sax dàkk yal na yal na ngeen fi yàgg yal ngeen fi yàgg te fan wi te te te te ko gu wér te ànd ko gu wér ànd ak wërsëgu yaatu ànd ak wërsëgu yaatu njaboot gii njaboot gii suñu borom barkeel leen suñu borom barkeel leen barkeel leen ba nga xam ne barkeel leen ba nga xam ne fu ngeen bëgg ñu àgg fa fu ngeen bëgg ñu àgg fa danañ fa àgg danañ fa àgg ñi amut borom kër. ñi amuti borom kër it. ñi am ay borom kër. ñi am ay borom kër. te am borom kër yu baax. te am borom kër yu baax. ñu doon ay ay jullit. ñu doon ay jullit. doon ay taalibe. doon ay taalibe. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. sëñ Moussa. sëñ Moussa. nga jot ma nuyoo bi. nga jot leen ma nuyoo bi. ak cant yi. ak cant ci waa Daara ji. ci waa Daara ji. ak waa Daayira bi. ak waa Daayira bi. waaw maa ngi leen di sant bu baax. maa ngi leen di sant bu baax. xam naa danañ ci delsi. xam naa danañ ci delsiwaat. waaye lii moom. waaye lii moom. teraanga mënu ko weesu. teraanga mënu ko weesu. soxna si. soxna si. li nga bëgg lépp li nga bëgg lépp ak li la tax di sonn lépp ak li la tax di sonn lépp yàlla na ko sëriñ Tuba won yàlla na ko sëriñ Tuba won yàlla na ko maam Cheikh Anta won yàlla na ko maam Cheikh Anta won yàlla na ko sëriñ Modou Mamoun won yàlla na ko sëriñ Modou Mamoun won yàlla na ko sëriñ Modou Rokhaya won yàlla na ko sëriñ Modou Rokhaya won fi kulli waqtin wa hiinin abadan wa habli naazima ridaaka al akbar fi kulli harfin minha وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين